Fanta Mbuub ci groupe bi la bokkoon. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñoo ko déggandoo Cheikh Ahmed Cissé toj naa cottu ndeyam ba waxatul lu jëm ci kaa bi léegi da koy sëppi maam njaay Savon nee na maam Ndiaye Savon groupe bu lesbienne la bokkoon ay góor jigéen ak man. lib ñu bëri ñi nga lib ñëpp tooñ nga leen te kenn bokkul woon ci groupe bi maam Ndiaye jom loon ko xamee ak fulla man groupe bu ma nekk kuy nooyal du fa nekk koy yu dëgër a fay ne pas koy mel ne sa koy yi génn déedéet yu dëgër yi këcc. man boo nooyelee sax damay saaga sa day maam xam na li may wax nga bëgg sosal naan lesbienne la wala ay góor jigéen di ñëw ci bàyyi di sosal doomu aadama yi sosal nga Viviane mu jàll nga sosal Mia Guissé sosal Doro Gueye tey maam Ndiaye Savon nga bëgg sosal ak Fanta Boub tuuti nga ci maa ngi ñëw live téegal sa ndey bu baax maam Ndiaye gor la garmi la nit ku baax la fu baax la bokk du bon du caga du wëyu du fàqman te mu sa cagatu doomam yi mu am ñëpp ah ci ci sëy la leen amee dafa yàgg daan doolu nangoo sëy bëgg sëy lool da daan bëgg boppam nar a tas wooba ma ne ko déedéet doo tas maam continuer nga sëy loo soxla ci teraanga ma yónnee la mais sëyal bul tas bul dem da daan sonn mais courage ak jom ji góor gu mën jigéen gu mën góor mooy maam Ndiaye Savon mënoo koo tuumaal maa ngi ñëw live sëñ bi jaaxle ne de gars yi léegi fii la wiiri kaa bi ba pare nag sëñ bi kañ ngeen ko daan gis live sëñ ba da kañ ngeen daan gis sëñ bi mu ànd ak juste dessert live yëpp lay dugg di jënd nit ñi pour ñu koy dimbali ci kaa bi dem na ci ba da jënd ko ak 10 mètres jesneer jox ko xaalis le juge bu duggoon sama live doon ko saaga gis ngeen ko dem na fa ba jënd ko ba le juge def live ne da koy défendre mi ngi wër ñëpp pour ñu défendre ko parce que nag dafa métti li ma ko teg la attanul te man garmi laa man 17 millions habitants damay xeex ak ñoom te ba duma wut wàllu moo tax man kuy taxaw naan garmi laa dama lay ree bandi la benn bandi moo am Sénégal muy Adamo maa ngi ñëw live sëñ bi gisagoo dara dinañ téegal sa ndey lu baax maam kenn mënu ko yàq wasalaam